marlooj da ngay dugg cim kër. mën nga xam ne njulli kaata la. daanaka fépp. non fu ma damay julli rek man fa mu fekk may julli yàlla na yàlla xeeb doole xaw ma lu ñu may dóoree bu yomal xelam waaye du nekk julli dégg nga loolu mais xoolal da ngay dugg ci biir kër chrétien ñoom sax dañoo dem ba affaire bi ni mu naturel yi dafa ëpp sax. Mm-hmm. da ñëw rek ne man de gars yi da nga bëgg a jàpp bëri dox la satala. Mm-hmm. lalal la basang. Mm-hmm. chaque jour ma leen di mbalak ne leen xoolal boo ne allahu akbar rek. danañ jàkkaarloog photo mari bi. Mhm. ak juge yi xam nga li ma la nii nii nii seen kër yi parce que nit dañuy jaxasoo di ñun comme chrétien yi noonu la nekkee ci biir kër. Mhm. jullit yi jullit wala nga nekk ci kër kii doon chrétien kii doon musulman. Mhm. ah mais yow moom luy taalum réew rek luy taalum réew cartum réew mi ci boppam moom la ñu war a appliquer wax ji jeex même ñoom di taalum réew sax am na lu constitution bi wax ci ñoom. waaw da dañoo war a yëkkati yat waaw tay leen ci gàngug leen loolu moom mooy dëgg en tout cas yonent de nee na yàlla daal en tout cas mi ngi rëbb képp koo xam ne yaa ngi yee fitna bu dee leen loo xam ne lu jug ne njëgg neex li jënd bay bëgg a dee constitution bi moo ne nangam nañ leen def nangam nga ciy jàppale waate naan non ñun ay musulman lañ ñu doon far ci chrétiens yi la ñuy ci jullit yi la ñuy far mais boo bëggee dégg dëgg premier ministre bi di fenn yeggali léew mhm. voilà ñu ñu jàll ci beneen point vite fait ah, ci euh, ba tey ci ki nga xamante ni moom moo di le premier ministre Ousmane Sonko euh, amal na benn sortie di yëgle ni daal euh, dañoo fekk ci réew mi ab situation bu chaotique maanaam daal ay jafe-jafe yu méttee métti lañu nangoo réew mi ci loxol ki nga xamante ni moom moo di ex président Macky Sall d'ailleurs sax nee nañu dinañu dans les jours à venir dinañu amal ab. sortie euh, euh, waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan bi mettre leen au parfond de la situation comme ni ko ñenn ñu doon waxee avant gis nañu ku ci euh, mel ni ki nga xamante ni moom moo di Pape Alé Niang récemment leen wax leen dëgg gi ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan bi mu mel ne nag jamono ji ñoon na xom nee nañ ci ay étude de dossier lañ nekk bu ñu paree dinañu yaatal mbir mi ñëpp daal di ciy jot honorable waaw en tout cas premier ministre Ousmane Sonko day moom moom loolu it loolu ñoom moom bu dul dara sax xaw ma ndax ñu ngi dund pression xaw ma dund ñu pression de mais en tout cas ñi nga xam ne ñoom ñoo leen fal voté leen seen 54 pour cent yooyu li ñu leen wax moom lenn dong la non seulement reddition des contre mais dëkk bi nañ ko teg ci jub jubal jubanti waaw boo defee nag état des lieux ba nuppi population bi dina déglu li Ousmane Sonko wax loolu moom moo ci topp mooy dinañu wax nit ñi ne leen lii ak lii ak lii moom lañ fekk dina tax sax ñi nga xam ne soose dañoo yàkkamti ne ci ñeenti weer kilo ceeb dafa war a jër ñetti dërëm dégg nga loolu kilo meew du jër ñaar fukk dégg nga bëgg gaa yi ñëw tey toog tey mu dox tey ubbi tey jàng tey ñoom Ousmane Sonko premier ministre rek président Diomaye bu ñu waxee sénégalais ne leen lii lañ fi fekk ñi ne woon du ñu leen may grâce dina tax ñu may leen jàmm ñi ne woon cent jours yi ñii yàq nañ réew mi ci cent jours defuñ fi dara bu boobaa ñëw dinañ leen dinañ reculer liñ naan sugu recul bu boobaa ñëw ñooñu nga xam ñoom ñoo war a gën a gaaw sax wax nit ñi lan lañ fi fekk xanaa ñi nga xam ne ñoom dañoo taxaw kut kut kut nit ñi moom sa moom dinañ fi def résultat wala ci boppam dinañ leen dinañ leen faagaagal mais bu boobaa xanaa ñooñu dinañ reculer waaye nag kuñ ne jant baa ngi nga ne lii du jant bi. kenn mënu ci dara ils ont beau xam nga baax def la reddition des comptes état des lieux yeggee ko sénégalais am na ñoo xam ni association siisu la ñu dëkk te fa la ñu bokk tam fa la ñuy football ASC siisu mënoo fexe mu sëkk mu tër bi soose boo leen defaloon kilo ceeb ñetti dërëm sax lu tax ñu apprécier. Ah. waaw loolu nag loolu loolu nag Sénégal rek la am loolu Sénégal dong la am. gis nga. euh, la vice-présidente américaine là Kamala nii soo see ndaw si moom waroon nekk vice-présidente euh, Sénégal am vice vice-présidente ba ba ba bañ ne président ba ci boppam renoncé na kon automatiquement moom moo war a ñëw nga xool gouverneur yi ak parti ba dinañ yéeg ci kawam maanaam lii mu jot a am ak nii sax du ko am. parce que dañ naan logique pour logique si c'est pas le président kay vice président bi moom mooy ñëw mais est-ce que fa war na am débat bu doon Sénégal tey lay jur débat boo xamante ni nii tey bàyyi dem ma bàyyi sax mooy njëkk dee parce que moom la ñuy njëkk a tuumaal ne ko yow yaay warkat bi tu nous as trahi nangam sax doo ko jublu ci ndaw si nga yaakaar ni ku jigéen kii war nañoo mën a jiite taañaañal ko taañaañal ko ba ndaw si ci boppam boo sàgganee moom tamit day renoncé waat kii ñëwaat encore ñu defaat ko noonu. léegi nag yow loolu yëpp boo ci bëggee noppalu ñëw nga li Ousmane Sonko wax nee du yàgg dara te état des lieux def nañ ko ci benn journal te presque pare dinañ yëgg Sénégalais yi mi fi ko fekk réew moo xam ni. ay prévisible ay maxa ko jàpp. Mhm. di ko ngerej di ko ngerej xam nga lu ruiné ay ay max ñoom ñoo kii mhm. waaye xale yi moom keroog nee naa leen xam ngeen max ñooy ni ci bunt yi nii te jàpp bunt yi di ko di ko lekk ak suuf di ko lekk ak suuf ba bunt yi ne mbàpp. lu lu lu lu ruiné wala wala bu dee weñ la loo xam ne dafa dem ba xuur xam nga li ma la. waaw di ruy ba sedd guy nee na état bu mel noonu moom la ñu fa fekk. te du yàgg dara danañu génnee bagage yi teg en tout cas li nga xam ne moom moo jot a génn rek li président Diomaye waxoon cour des comptes IG ak euh, OFNAC ne leen indil leen ñu rapport yi teg <laughs> kon ko yooyu rek ñoom ñoo ñëw rek loxo dar gémmeñ ah nañ toog xaar yi. en tout cas premier ministre nee na léegi nii rek dinañ ko yegg Sénégalais yi bu boobaa nag et puis nee na tamit conséquence a topp tamit laal na ko. Uh-huh. bu boobaa nag ah. ñu toog rek seetaan en tout cas réew mi de loolu la ñëw yàkkamti mais am na loo xamante ne nekkul woon kumpa ci ci sénégalais yi que situation chaotique euh, bàyyi na ko fii parce que euh, visiblement booy xool sax ça se sent. ñoom dañoo bañ. Mm-hmm. bi ñu leen waxee ne leen caisse moom yàlla dogal na moom ci ñetti weer yi waa kees gi dem ñoom Abdou Mbow dañ koo weddi dañ ne loolu amul. mais bàyyi leen rek ba lu officiel li ndax léegi te et président de la république plus voix autorisé que le président de la république la première institution tu meurs <laughs> voilà. voix autorisée. bu toog wax nangam nga naan ko loolu am walla waaw léegi nag lay gën a dee mooy gars yi ñëw indil leen ay këyit ne leen yéen a ne woon amul léegi nag lii lañ fi fekk wax ci daal di faram-kolaay jeex na. Amina. en tout cas mi ngi noonu loo xamante ni euh, mën nañu sax nekkuloon kumpa mais euh, Sénégal yi li leen ump rek moom moo di la fond des choses euh, maanaam ci ban situation réellement lañu ko fekk mais situation chaotique moom nekkul loo xamante ni kumpa la te le PM nee na dinañ ci amal ab sortie expliquer ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan bi def communication comme ça réeroo bañ am. waaw loolu effectivement wax na ko. Mm. ci njëmbatum garab ma ba mu Euh, wax na loolu <clears throat> loolu nag waxoon na ko euh, mais man dama koy dama koy saluer dama koy encourager parce que exercice la boo xamante ne dafay renforcer la bon gouvernance dafay renforcer la transparence ci ñun gestion wu suñu alal xam nga nag loolu aussi lu yàlla la ba ci entreprise bi gën a ndaw tey boo ñëwee hérité ko war koo jiite li ngay njëkk a def mooy def état des lieux xool les actifs xool les passifs boole yépp hérité nag doxal waxumala nag am réew waaw réew nag dafa yaatu man gëm naa ne état des lieux ci ñetti weer ñeenti weer sax tuuti na gën ngaa gàtt war ngaa laal juróom-benn weer jëm kaw pour xool nag dëggantaan liñ fi fekk lan la secteur par